jangeen jëf mbokk yi ci seen kóoluteef ak ànd ak ngeen ànd ak les programmes de la 7TV télé bi ñu niru ba noppi di ñu dajale ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax ci suba si am yaakaar ni que yeewu ngeen euh, ci kaw jàmm ak salaam bu ko defee rek ngeen dal jàmm ñu tàmbali nag ñaareelu pàccu euh, matinal Allô Sénégal ànd ceeg Grégoire Ngom Grégoire maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax Aïcha naka suba si bàyyi nga am jàmm sant yàlla bu baax a baax la nga wax li nga xamante ni moo gën a fës ci bopp xibaar yi tey suba si ponk bi benn la Aïcha jàppal nag ne bokk na ci fitna ga jib démb ca baruka camp nekk nag kër fa nga xam ne daal jot nañu fa denc ay doomi aadama foofe ca baruka liberté 6 démb fitna gu métti la ñu fa seetlu jamono ji naka loolee daal la ami njeexital yu rëy ba tax na nag jamono ji administration pénitentiaire ba daal di rek euh, génne ab bataaxal nag di ca leerlal jàppale nag ni fi ñu toll ni ñoom ñëpp xam ne nañ daal ni daañu ci ubbi ab l'enquête waaye ci wet gi njiital la Ligue sénégalaise des droits humains moom tamit wax na ca gis-gisam jamono ji mu bëgg rek ñu daal di saytuwaat anam yi nga xamante ne daal ñoom doomi aadama yi lee caabi féete ginnaaw noonu la ñu fay nekkee di ko dundee Aïcha lu ne mel moom mooy li gën a fës ci biir jotaayu xibaar. jërëjëf Grégoire mbokk yi ñoo ko déggandoo daanaka li moo gën a fës boo leen léegi léegi ñoom da Grégoire Ngom mu daal di faram fàccale ci xibaar yi. gërëm leen leen bu baax a baax mbokk yi ci ànd bi ak kóolute gi ca compénal bu Liberté 6 daanaka sagar xeeñ na fa lool ginnaaw nag fitna gi nga xam ne jib na diggante yenn ci prisonniers ak garde pénitentiaire jàpp leen nag ni jamono ji gis nañu fa daal ko ci xook xeex gu métti seen ak diggante ba tax na nag administration pénitentiaire ba ginnaaw si fësal na ab communiqué di ca leeral ñu ànd ceeg Pape Bandagay. direction ci prison bu camp pénal bu liberté 6 ay jàmbaarloo daal dina jib ci àllarba jile diggante ay prisonniers ak ay garde pénitentiaire vidéo yi nga xam ni ay prisonniers ci boppam ñoo ko daal di filmer di wane jàmbaarloo yu metti mu di ay image yoo xam ni daal dinañ ko tasaare ci internet ñuy wone ay mbir yu doy waar ak i saaga. ci ab bataaxal administration pénitentiaire daal dina dëggal mbir yi waaye ñuy xam ne ni luñ mel mu ngi tukkee ci prisonnier yu chambre huit bu camp nga xam ni daal dinañ lànk ni duñu wuy ji ci lu ñu tuddee appel nominatif mu di loo xam ni dogalu ba kaaraange ngir saytu carte d'identité intérieure ak wér yaramu képp ku nekk ca prison boobee waaye ci vidéo yi nga xam ni daal nañ ko posté ci internet mu mel ni prisonnier yi ñu ngay fësal la tax ñu amal lu ni mel mu di anam yi nga xam ni noone la ñuy dundee dund beneen mbir mi nga xam ni daal dina jur njaaxle moo di nemmeeku ay téléphone portable ci biir prison bi ak ñi filmer vidéo yu ni mel ci jamono bi nga xamee ni dañ koy tere ci biir prison. administration pénitentiaire daal dinañ xam ne nii danañ ubbi ab enquête ngir rek xam fan la téléphone yooyu daal di jóge ak itam naka lañ def ba dugg ci prison bu Camp pénal Fapal nag ay jàppal nag ni cawle tam bokk na ci lu tax Alassane Seck moom daal di cee jóg jamono ji daal moom njiital Ligue sénégalaise des droits de l'homme taxaw na bu baax a baax daal di koy naqarlu ba fa yëf ya daal day yem nee na nag jamono ji ah, mu ngi sàkku daal ñu ubbi ca ab ngir indi leeral ci coow li nga xam ne daal jot nañu ko dëxëñ ci seen ak communiqué jamono ji muy waxtaan waxtaane tamit seen ak nekkin ca biir kaso yi nee nañ daal loo xamante na ni. jamono ji ñoo ñu toll war nañu ko saytuwaat bu baax a baax ponk la boo xam ne mbokk yi dinañ ci ñëwaat ak yéen ci yaatal filex ñu yeneen jotaayu ko xibaara waxtaane bi ne nag mer ga bokk na ci nag ba suka transporteur yi lee jamono ji ñoom ñooñee mer nañ daal jawrin bii di El Malick jàpp daal ne jamono ji bis Dakar dem dikk yamu yëkkati ci xew-xewu ka tabaski bi le daal waruloon ndaxte jàpp na daal ni loole fësalul benn yoon daal yëfu ka patriotisme nga xam ne daal ñu koy woote bu ñu sukkandikoo jamono ji daal uh, ci uh, kii di a Khouma jamono ji uh, nguur gi dafa daal di rek def ab réaction boo xamante ni jàpp na ne warul loon ci jamono jooju. coow bu metti moo daal di am gannaaw bu ñu bëri doon waajal dem julli ji seeni dëkk gannaaw bu ñu yokkee njëg yi lu jëm ci wàllum transport bi ministre bi di El Malick Ndiaye daal di fay indi oto Dakar dem dikk yi ngir rek ñu daal di ñëw yóbbu clients yi li ni mel metti woon bu baax a baax yi les chauffeurs. man jàpp naa ne njuumte gu rëy la ndax Dakarim dikk am na ay lignes interurbain maraîcher ca Pikine bis boobee la daal di woon xamle ni dina def li mën ngir rekk gaaru cër yi nga xamante ni nekkuñ ci yoon ñu mun leen fay jëlee ba képp kuy jël oto di voyager nga mun koo ñëw defee ci biir gaaru cër bi loole nag góoraxuma di ko si fekk si. moo jaadu man loolu d'accord naa clandestin yi clandestin la te nous sommes dans un pays organisé organisation boobu nag bàyyiwul kenn gaaru routière officielle yi yi état bi fa la ñëpp war a départ oto bu départ ñu recensé ña fa dugg ba xam bis bi set dinañ xam ne tant de personnes ko transporté nañ ko mais loolu mooy organisation. weeru juillet bi lañ fa yéene amal ay waxtaan yu yaatu yaatu jëmale si wàllum transport li ni mel nag ñu jàpp nii mooy nekk li nga xamante ni nii mooy tax ñu saafara. dem beeg dikk bi fii ci Sénégal dina tax ñu daal di fixer njëg li ci benn prix. comme ñoom ñun organiser wu ñoom ñoo organiser il faut venir avec les termes de référence termes de référence yooyu ñu indi nag dañ nañu ko présenter luñ ci ànd ñu ànd ci luñ ci àndul ñuy def contre proposition mais pour l'instant ñun buñ amee proposition mënaguñoo wax lenn parce que xamaguñu lan la terme de référence yi di génne. jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci wàllum transport bi fii ci Sénégal jur coow bu baax a baax li mel nag faral di indi xiiroog ngaayo diggante chauffeur yi ak clients yi. ñu wax ci wàllug énergie ak subvention ba ñu ko jagleel Edouard Chemayel jamono ji moom daanaka wax na ca jamono ji bu ñu sukkandikoo rek ci njiital mission bu Fonds monétaire international lu ne mel tax na nag nguur ak Sénégal daal di rek génne rek lu takk koppar yu takku ci gafakam ngi lu ne na ko rek ci ñetti at yi nga xam moom la ñu weesu ñu ay kàddoom. cette année euh, malheureusement. bu ñuy xayma ci ren li nga xam ne moom la ñu jot jël ci koppar dugal ko ci ay subventions ci wàllu énergie xayma nañu ñu toll ci cinq cent milliards ci francs CFA. léegi nag bu fekkee dañuy xayma ci ñetti at yi weesu li ñu dugal ci koppar ci wàllu subvention ci wàllu énergie ñu ngi ci mille huit cent milliards ci francs CFA. xam ngeen ni loolu diis na lool mille huit cent milliards ci francs fa ci ay subventions yoo xam ne ñu ciblé ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla. loolu dama jàpp ni lu diis la loolu ci économie ci budget bu réewu Sénégal war nañu bàyyi xel ci mbir moomu. moo tax euh, dañuy fàttali ne am na ay recommandations yoo xam ne yàgg nañ ko fi wax dañu war a bàyyi xel fi nga xam ne foofu lañu war a dugal subvention yooyu. foofu ñu gën a jubanti mbir mi loolu yàgg na nekk discours bi ñu yàgg yëkkati. jëmle ko ci kilifa yi mooy nii dafa war a nekk ay subvention ciblée dafa am ñu ko soxla ñooñu la ñu war a jox subvention yooyu damay jox rek benn exemple FMI soxlawul ay subvention soxlawul bénéficier ci yooyu les subventions de ces subventions le FMI en tout cas n'en a mbokk li xibaar nag ci tënk ngir ndar képp ko ca Paris négéey tey ci alxames gi la ñuy nag amal ubbiteef fukk forom bi nga xam ne ni moom la ñu jagleel wàllug vaccination ànd ceek loolee di Union africaine ci tax kilifteefu ko Gavi nekk alliance des vaccins bu ñu koy xayma nag jamono ji daal war nañu daje ca euh, loolee di màkkaanu ko ministère des affaires étrangères et des représentants des états africains waaye tamit basuka industrie ak pharmacie jàppaleen daal ni lu ni mel ca boruke bi ci réew la ñu nag euh, mbëbët ci lu ni mel bokk na ci rek fexe ba dend ko Afrique mën a am ay vaccin yu mucc ay ca anam yamu gën a gaawee waaye tamit mu fexe rek ba di ko liggéeyal boppam ci euh, ay suufam bu koy xayma daal forum bi itam bokk na ci loo xamante ni daal dana tax ñu daal di gis beneen naka taxawaay ci wàllu ko fexe tamit ba dendu pa am beneen ko gis-gis boo xam ne daal dana ko am ci mbirum paj mi waaye tamit gën a doole rek loole di industrie bu ni mel ci continent bi ñu nekk. ñu nga mbokk yi kon waxtu euh, yëkkati bi la jotaayu xibaar jot na cant ak ngërëm ña leen baax a baax cant bekkolte bi ay chaafi la ñuy jaar yemale fi xibaar yi. jërëjëf Grégoire ñu jaajëfal bu baax a baax ñu joxante dig daje ba ëllëg incha allah. ci yeneen jotaayu xibaar Aïcha. jërëjëf Grégoire Samba ngoom ñu jaajëfal ko mbokk yi dese nag ñun dañuy woyal xibaar yi gën koo yaatal ak li nga xamante ni moo di la revue web léegi lay doon bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.